président chambre de métier de Thiès waa Saba. président Amadou Mouta Seye président chambre de métier de Thiès. affaire keneen boobu nu mu demee sa conseil boobu. non xam nga man waxoon naa ñaanoon naa ay suma xaritu journaliste yu bari yu ma doon woo di ma laaj ma ni woon bëgguma tontu ci affaire bi sérieusement mais comme ñu ngi may woo téléphone sama ay am di jàmm ak ñëpp di ma laaj bëgg naa rek tuuti wax wax ci tuuti rek pour wax la ni la. affaire recours ak yooyu kenn notifié wu benn kayit bu wane ni recours am na mais li concerne Serigne keneen sama xar sama sama collaborateur bi nga xam ni moom dafa nekk délégué chambre de métier douze ans ci ren fukki at ak ñaar nekk na ko délégué chambre de métier nekkaat na ko pour juróom-benni at encore waaw te loolu kenn mënu ci dellu si waat parce que am na carte professionnel bu nekk en cours de validité figuré na ci liste électorat bi c'est-à-dire Serigne Kene bi mu fayee renouvellement cartam dafa am dañu affiché première affichage yi bi ñu arrêté liste yi le 12 décembre ci minuit bi loolu pa pare dañu affiché waat liste yëpp ñi nga xam ni bokk nañ ci liste bi yëpp ñu taf boobu temps dañu maye woon ni koo xam ni gisoo sa tur ci liste bi te na nga dem joxe say preuve pour ñu dugalaat la ci bi loolu am na ci camp yëpp camp yëpp dugal nañu seen i kayit chambre métier chambre métier génne seen i effectivement moom mi doon encaissé génne seen i reçu wane ni <coughs> ñoom kat fayoon nañu jël kayit yooyu yóbbu ko ci comité électoral bi bi ñu ko yóbboo ci comité électoral bi léegi kële comité électoral bi ñoom ñoo siégé validé ñooñu bi ñu amee preuve yi ñu war a soxla ba pare. wane ni ñii kat fàtte moo am mais dañ leen waroon dugal ci liste bi alors léegi nag ci lañ leen imprimer directement ci liste bi nga xam ne bi ci la ñu war a voté waaw léegi nag le fait que voté na wala voté wul loolu amul sens li am sens mooy ndax figuré na ci liste yi bien sûr figuré na ci liste yi ndax am na carte professionnelle am na carte professionnelle donc Serigne Kene délégué chambre de métier yàgg na nekk artisan bu ñu xam aussi mu ngi ay cartam carte professionnelle yi musul nekk musul ñàkk renouveler comme ñoom niñ koy defee sax moom musul ñàkk renouveler cartam moom saa yu cartam jeexee dafa yore ay ay liggéey yoo xam ne daf koy exiger mu dem renouveler waat cartam day génn réew mi di day lu nekk day liggéey donc yooyu koy am doo toog ba élection jot nga naan